muy salaatul istixaar mooy julli tànn lu yàlla ci julli yi la bokk waaye julli gi nit ki def koy julli di tànn lu yàlla pour yàlla tànnal ko salaatul istixaar mooy lan mooy hiya talabul xiyara min allahi azza wa tànn lu yàlla yàlla tànnal la azza wa lan la lay tànnal danga ngaa war a dugg ci mbir danga ngaa war a tukki danga ngaa war a takk soxna danga ngaa war a liggéey da war a jënd kër da ngaa war a da war a loolu bala nga koy def nga tànnalu yàlla yàlla tànnal la mbir moomu ndax baax na ci yow wala baaxul ci yow mu ne fa in muslim fi xaaja bu fekkee jullit bi dafa nekk ci aajo li ixtiyaari bayna shay'ayni dafay tànn lu ñaari mbir ma tukki walla ma toog ma takk wala ma bàyyi ma jënd wala ma bañ a jënd ma dugg walla ma génn su boobaa mu ngi tànn lu yàlla tabaraka wa lan lay def day julli julli googu nga xam ne mooy salaatul istixaara nga tànn lu yàlla benn ci ñaar yooyu nga bëgg dugg wala génn dem walla toog mu ngoog ñaar yooyu nag boo ko defee ba toog bu fekkee dangaa dem mu yomb kayit yi yomb yëf yi yomb yëgal ne baax na su fekkee dangaa dem mu jafe yëgal ne ba tey baax na nga toog waaye li doy waar nit day def istixaar dama war a takk jabar gis naa xale bu jigéen bi ma bëgg gis naa ko góor ki ma bëgg ma def istixaar ma dem yëf yi dëgër nga naan ko nañ jéngu takk nañu daw nañu dem feneen ñu maye ñu déet yéen kay kon jarul ngeen def istixaar ndax yéen a tànn lu yàlla ngeen dem mu dëgër kon bàyyi leen yomb na dugg leen loolu moom mooy istixaar mbokk jullit yi tànn lu yàlla tabaaraka wa taala ci ñaari mbir yi li ngay ndax baax na ci yow wala baaxul ci yow bi ci gën a yomb nga xam ne moom la nga xam ne baax na su fekkee dëgër na nga daal di bàyyi ba tey nga xam ne baax na ndax yow yaa wax yàlla mu tànn la ixwatal imaan istixaara lu ñu bëgg la nit di ko def mooy tànn lu yàlla tabaraka wa tànn lu yàlla al istixaar dañoo bëgg jullit muy tànnlu yàlla balaa dara di xew na def ñaar na tànnlu yàlla na diisoo na tànn yàlla na diisoo balaa dara di xew ñaar yooyu na ko def yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na du réccu mukk kuy diisoo ak kuy tànn yàlla ibnu taymiya nee na maa nadima man istaxaara alxaaliq kuy diisoo kuy tànn yàlla doo réccu wa saawara almaxluuqiin muy diisoog nit ñi diisoog mbindeef yi du réccu kuy tànnulu yàlla di diisoog mbindeef yi du réccu sax na jóge ci yonent bi alayhi salaatu fa bi ma euh, ci borom bi tabaraka wa taala fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan ghaliza alqalbi lan faddu min hawlika faafu anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin yàlla tabaraka wa taala wax na yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla la la dajaleel ñi nekk sawet soo fekkoon ne ku tar nga ku ñàng nga ku bon xol kon duñu toog sawet kon jéggal leen jéggulu leen yàlla del diisoo ñoom ci mbir boo jël waaye boo diisoo ba pare boo jëlee décision wàkkirlul ci yàlla ci exécuter loolu ndax yàlla bëgg na ñuy wàkkirlu xataadata nee na maa tashaawaru qawmun yabtaxuna wajha allah ila hudu ila arshadi amrihim ay nit duñu dajaloo diisoo ci benn mbir ba ñuy diisoo dañoo bëgg am ngërëmal yàlla kontaante yàlla lu dul yàlla dina leen jubal ci seen mbir moomu kon bokk jullit yi istixaar ba nga jëlee matukaay yi bam mat nag ci ngay tànnal yàlla te ngay tànnalu yàlla dama bëgg a tukki defar naa këyit yi ut naa paas jël li ma war a def yëpp def naa ko ah ma di def nag ma daal di tànnalu yàlla waaw kay ma daal jël nag léegi nag tànnalu yàlla def naa sabab yi ba pare waaw bokk na ci def sabab yi ba pare nag daal di suuraa diisoo soo diisoo tànnalu yàlla léegi nag mën nga exécuter mbir yi mbokk jullit yi loolu naka lay demee mooy tànnulu yàlla googu wa takunu an yusalliya al muslim rakaatayni ñaari rakka ngay julli ñaari rakka min gayri farida yoo xam ne du farata ñaari rakka yoo xam ne moom ngay jullite du farata ñaari rakka yu dul farata xanaa du suba du tisbaar du tàkkusaan du timis du gée nga sant yàlla tabaraka wa taala boo sëlmalee boo jullee ñaari rakk yooyu ba pare boo sëlmalee nga sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam nga doog a ñaan ñëpp ci ñun dañoo xamul yoon yi ñuy jaar pour ñaan moo tax seen ñaan du nangu ñaan dafa am ay yoon yooyu jaar waaw dafa am ay yoon yooyu jaar pour sa ñaan nangu dafa am waxtu yooy ñaan pour sa naan nangu dafa am façon ñaanin booy ñaanee pour sa ñaan nangu yooyu yëpp nag bu dee dajewul ci yow mën ngaa sonn ci mbir yi mën nga cee yàgg mën ngaa kër-këri nga defa ne yàlla la fekk yow la mbokki jullit yi kon ñaari ràkk ngay julli yu dul farata soo sëlmalee nga sant yàlla bàkk ko kañ ko julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo paree nga daal ñaan ñaan gi allahumma yow yàlla inni man mii astaxiruka maa ngi lay tànnloo bi ilmika ci sa xam-xam wallahi yow yàlla maa ngi lay tànnloo ci sa xam-xam ndax yàlla xam-xamu lii ngay dugg yàlla moo ko xam fa muy e, terminer jeexi ji ak yow ëllëg fam la yeggal wala loo ci nar a daj walla lu la ci nar a fekk yàllaa ko xam kon nag tànnulul yàlla ci xam-xamam wa astaqdiruka bi qudratika yow yàlla ci sa kattan nga xam ne yaa mën lépp lu sotti yow la ku am yow la ku ñàkk yow la ku wér yow la ku dund yow la ku dee yow la jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu maa ngi lay tànnuloo ci sa xam-xam wa astaqdiruka bi qudratika di la teg ci sa gëdd ak sa kattan ak sa mën-mën wa asaluka min fadlika ma lay ñaan ci say ngëneel al azim yu màgg yi yow yàlla ngëneel yu rëy yi nga yor ngëneel yu rëy yi nekk ci yow yu mag yi xéewal yooyu yow yàlla maa ngi la koy ñaan yow yàlla fa in kunta fa innaka taqdiru wala aqdiru yow yàlla yaa mën man mënuma <laughs> allahu akbar yàlla yaa mën mënuma fa innaka taqdiru wala aqdiru yàlla yaa mën mën mënuma wa taalamu wala aalam yàlla yaa xam man xawma yaa mën mën-mënuma yow yàlla yaa xam man xamuma mbokk jullit yi subaak jàmm ñu eggalee ñaan gi incha allah ñu bañ ko yàkkamti ñu ñaan jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu jéggal ñu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.